ginnaaw bi ñu leen di yoo tey jii ci àjjuma juróom-benni fan ci weeru septembre ñu ñëw ak yéen ci li gën a fës xibaar yi ñu dooree ko politique gouvernement bi président Sall moom naka daanaka rek dafa ñooñu ay ministre am ngir ñu taxawal seenu liggéey ndax daanaka rek dañuy woyal seen liggéey yi nga xamante ne nii amaloon nañu ko lii di plan émergent gu Sénégal bi daanaka rek dinañ ko xoolaat ak train express bi nga xamante ne nii dafa indi ay jafe-jafe yu bëri ci wàllum population bi xamante ne nii dooroon nañu ko ak det yi nga xamante ne nii amel nañu ko ñi nga xamante ne nii ñoo di entreprise yu yor wàllum bâtiment bi moom daanaka rek am na dëgg ci kaw ñi nga xamante ne nii ñoo nekkoon ci parti démocratique sénégalais ndax daanaka rek waxoon na ancien président bi di Abdoulaye Wade dafa bëggoon lu dul rek jël doomam bi daal di koy teg ci bopp parti ba daanaka rek loolu rek mooy wëy di amal te nit ñi ñu ngi koy gis dañuy wëyal ba tey ak élection locale yi nga xamante nii daanañu ko amal ci ay ay weer yi ñuy ñëw ñoom nag opposition bi daanaka seenu ñàkk déggoo tey bokk ci ndax te nee nañu li nga xamante ni nii moo di élection yi ñoom nag daanaka rek kenn rek warul nekk maire lu dul nga gagné ci commune ba nga nekk dañuy wéyal ba tey ak société kii di journaliste Adama Gaye moom nag daanaka rek dinañ ko jox liberté provisoire am ci ay fan yu néew kii di góor xumma moom nag daanaka rek wax na ci li nga xamante ne ni président Sall wax na ko ca conseil des ministre ba nee na li nga xamante ne nii dogal bi président Sall jël ngir ñu renforcer li nga xamante ne nii moo di tali bi euh, pour que ñi yore permis yi ñu xoolaat ko bu baax a baax nee na nag nekkul lu dul rek di renforcer euh, li nga xamante ne nii moo di corruption gouvernement bi nag daanaka rek jël na ab ndogal euh, ngir université yi nga xamante ne nii ñoo di privé yi te bachelier yi waroon fa dem ñoom nag jël nañu am dogal ngir ñu yóbbu leen ci université publique yi loolu nag ki ka xamle mooy jëwriñ ju ñu denk wàllum enseignement supérieur moom nag daanaka rek loolu la wax dañuy woyal ba tey ak drogue bi nga xamante ne nii gisoon nañ ko ci pooru Ndakaaru daanaka rek lu bees teñ na ca ndax couple allemand bi ak italien yi ñoom nag daan nañ leen di jox seen liberté provisoire ko ko signé mooy doyen des juges école Sainte Jeanne d'Arc moom ma tey ma ngay woyal ak i coowam kii di Thierno Bocoum ma nga cay àddu di wax ne gouvernement bi moo war a jël ay responsabilités am ndaxte euh, euh, lii di règlement intérieur wala xamante ne ni day eh, nax nasaxal li di luwaayi eh, constitution bi dañuy continuer ba tay ak Abdoulahat Tall moom nag marchand ambulant la nekkoon fee ca Italie di door waaram moom nag daanaka rek dañ ko fekk ca tefesu géej ga euh, mu ñàkk bakkanam ay azam tolloon na ci ñaar fukki at ak juróom-ñeent Moustapha ja moom mi reyoon Lalla Camara moom nag daanaka rek euh, condamné nañ ko prison à vie moom naka la waraloon mu reyoon ki di Lalla Camara nee nañ daf ko waroon a jox xaalis si lu toll ci cinquante euros ndaxte moom mi di Moustapha Dia da non drogué ak justice am ca fee ca Zimbabwe ki di Robert Mugabe mu nekkoon ancien président bu Zimbabwe moom nag daan nay faatu euh, ay atam tolloon ci quatre-vingt-quinze ans euh, dañuy terminer ak sport phase nationale yi fii ci Sénégal muy du amee ci Louga euh, équipe bu Thiès bi di Ersan moom nag daanaka rek dimb da doon amalok massam moom nag dafa daal di dóor ki di Union Albouri Real bu Kaolack dóor na leen ci lu toll ci ñeenti bal ak ñaar Dakar euh, final yi nag euh, dana door ca Louga ci stade bu Albouri Ndiaye euh, daanaka rek Hersent bu cees dana loo ak kii di Yamatooñ bu Ziguinchor loolu lañ leen indiloon tey ci li gën a fës ci xibaar yi di leen jox dig daje suba ak ci waxtu wi incha allah.